Euh, j'ai même pas compris pourquoi le gouvernement a cru nécessaire euh, d'en parler mooy euh, l'avocat français d'Ousmane Sonko Juan Branco il lance des postes il pose des questions nee na dafay lancer des procédures contre les autorités sénégalaises au niveau de la cour pénale internationale Sidiki Kaba wax na alors est-ce que jàpp nga ne tey ci li xew Sénégal est-ce que cour pénale bien que Sénégal est, eh, est eh, signataire du traité de Rome bi eh, créé cour pénal est-ce que jàpp nga ne ci li xew Sénégal cour pénale internationale am na ci yoon lan mooy taxawaayu euh, d'après les informations yi nga wax lan mooy taxawaayu des instances comme l'ONU euh, la CPI ak les chancelleries occidentales. xam nga chaque jour bu ñu xëyee rek di gën a toroxal Sénégal quoi chaque jour. bu ñu xëyee rek di gën a toroxal Sénégal Sénégal dafa am dafa mel dafa am lu ñu yàlla. Juan Branco koo xam ne ay problème mu boppam kese kenn xamul nu mu toll Ousmane Sonko ni day wut avocat France tous les gros calibres qu'il a en France ña fa nekk ci avocat ak ni ñu toll ni ñu mel nga jël Juan Branco xam na tax muy défulé chaque jour muy wax. parce que dossier bi daf ko jomb dossier 1000 euros sax Juan Branco mënu ko am France c'est dommage bis bu ne dañuy toroxal réew mi quoi nga bàyyi tous les gros ténors di barreau en France jël Juan Branco Juan Branco problème yu am moom ci boppam ay problème yu boppam kese doy ko sëkk nga ni moom ngay def avocat kooku gëmewul dossier bi parce que mënu xalaat ci àddunaam am dossier bu mel nii parce que je dis dossier bu mel ni un leader politique africain du jël dossier di ko dénk ay Juan Branco quand même moo tax Ousmane Sonko ndeysaan ma dama ko xaw a yërëm. Hmm. dama ko yërëm dal ci kawam te il n'est amul réseau xamul ne àddina bi doxee xamul nit ñi xamul dara mais Ousmane Sonko euh, kii Juan Branco non man dama ko xaw yërëm quoi parce que imagine toi xoolal par exemple Mame Mbaye Niang par exemple mi mu amaloon problème Mame Mbaye Niang Olivier Cyr kooku c'est un avocat am na avocat yoo xam xam moom avocat am nañu ko expulsé am yoo xam ne barreau de Paris bu ñu naroon ñëw Sénégal Macron mooy wooyu Macky Sall na ko tel avocat mi ngi ñëw tel truc et cetera donc man je pense que bu Ousmane Sonko di wut avocat ci ñoom kii dossier bi daf ko jomb moo tax gis nga chaque jour xam nga mel mu mel xale buy nekk di devant un jouet chaque jour mu bind tey bind na neena man mii dañ may yóbbu cour pénal <laughs> international alors que moom France la dëkk de nekk tubaab France maa ko fa ëpp ay bien maa ko fa ëpp ay xame maa ko fa ëpp ay mbokk maa ko fa ëpp influence fuuf. bokk non dama est-ce que du diversion non defal nang defal nang defal te CPE bi muy wax maa ko gën a xam fuuf parce que man CPE dañuy traité dossier yu ma xam ñu bind ma. ma bind leen réponse wax leen li ma ci xam ñu jël samay article yu ma bind ci réew yooyu boole ko ci dossiers yi interroger ma ma wax leen ko xam na ma xam ña fa ne bu baax a baax xam greffe bi xam ñëpp donc ma bu ñu àndoon CPI moom moo moom laay tëj lu foofu ñoom se c'est Sénégal bis bu nañu kon ne di ñu toroxal ko c'est-à-dire que vraiment réew mi man xaw ma lan leen def yàlla Juan Branco waa ji mel ni benn ñebbe ci cin bis bu ne mu téye Twitter lu ne mu wax ko bind ko ci suñu réew mi mais mais yàlla mais vraiment ñun lan lañ def yàlla. mais mais ci oh, anam bi anam bi. et puis un plaisantin comme li di Sidou Kaba un fanfaron kan la mën a yóbbu cour pénal international cour pénal international nga yaakaar ni noonu lool la cour pénal international xamal tax ñu créé ko. cour pénal international dañ ko créé pour les crimes contre l'humanité le génocide et cetera maanaam crime dafa naan dafa naan crime gën a graaw ci àdduna bi. un plaisantin comme ça taxaw naan voilà xaw ma lan ay Macky Sall xaw ma lan telle personne tel membre du gouvernement Antoine Diome Cheikh Yérim Seck cour pénale mais il est malade lui moom dafa xam lan mooy cour pénale ñun ñu gën ko xam cour pénale foofu Sidiki Kaba bi bi mu nekkee fédération internationale des droits de l'homme daje nañ jour bi ñuy lancé cour pénale internationale à ëpp ko ay réseau ci monde bi gën koo xam nit ñi fuuf mais mais kii c'est malade Sénégal dañ lay rusloo tëjuñu fenn may leen ci te ñu mel ni benn ñebbe ci cin waa ji il se régale dans ce dossier la parce que dossier daf ko jomb c'est vrai kan moo ban dirigeant africain mooy am dossier naan Juan Branco les gros calibres de di barreau français toog fi ngay jël ay c'est c'est n'importe quoi